ñi ngi balu ñëpp xaq di bal ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di dajeeg yéen daje bu njëkk ci at mu yees mi nga xam ne mooy atub 2022 ginnaaw ba ñu matalee atub 2021 ndax comme ni ma ko daan waxe diggante sos ak sottal ndimbalu yàlla rek moo fi mën a dox ndam man ci am tabaarakallahu tey nag ñu dajeeg yéen dajeb jàngat dajeb saafonte dajeb ndokkalante e, tabaarakallahu di amal jàngat ci temps ndax lépp itam temps la mu mel ni la waxkat bi waxoon rek moo fi nekk ne innal jadidayni ida laya ala jadidin adna yaahu lil bila loolu itam ci valeuru temps la yàlla sax ci alquraanam ji wax na ba tàyyi di ñu conscientiser ci valeuru temps defe naa yéen a ngi bàyyi xel lu mel ne washamsi wal layli ak wad duha ak wal fajri ba ci bi ma gën a marqué ci contexte bi te mooy wal asri yooyu yëpp génnul rekk di ñu ci valeuru temps yàlla bu ne wal asr innal insaana la fi xusr illa alladina aamanu wa amilu solihat watawaasow bil xaq bi bis sabr yàlla nee na maa ngi giñ ci temps ak valeur am wala asr maa ngi giñ ci temps ak valeur am ñu ne ko looy giñ ci temps ak valeuru temps mu ne innal insaana la fi xusr nee nit ñu bëree bari réere guñ réere valeuru temps tax na ba seeni yëngoog seeni dalak seenug dem ak seenug dikk ak seenug dugg ak seenug génn lu ci bëree bëri bëri ci pertement rek la jëm seen activité yépp ci pertement la jëm te dara waralu ko lu dul réere guñ réere valeur u temps ñu ne kon waaw kon léegi naka pexe nag fan la ñuy muccee waaw naka pexe ginnaaw activité yépp ci pertement la jëm kon ku bëgg a mucc nooy def mu ne illa alladina amanu wa amilu salihat nee na ku bëgg a mucc faaw nga poser acte yuy wane ne pare nga pour jariñoo temps pare nga pour jëfandikoo temps de façon utile pare nga pour jëfandikoo waxtu jëfandiku bu am njariñ léegi nag nan la ñuy wanee nan la ñuy prouver ne pare nañ pour jëfandikoo temps jëfandiku bu am njariñ loolu nag faawu ñu jël suñu xol yi def ko benn genre réservoir réservoir nag ku xam oto ku ne kenn du la ko jàngal suñu ko defee réservoir ñu duyu ko ak benn carburant benn essence wala gasoil bu ñuy wax ngëm muy imaan illa alladina amanu mu jural ñu nag benn énergie boo xam ne yàlla tudd ko ci saar wi de waaye li wax sous-entendement maanaam yaa koy sous tendre yaa koy jëli muy carburant wu taqwa taqwa waaw taqwa nag moo lay jural nag action yi action yi waaw énergie bu ñu tuddee taqwa mu jural la nag nga jëf muy nga daw nag oto bi daw sa jëmm ji mel ne oto buy daw waaw ndax léegi dugal nga ca benn carburant bu ñuy tuddee ngëm mu jural la énergie bu ñu tuddee taqwa bu ko defee nag oto bi mën a daw nag buy daw nag mi ngi daw ci yoonu jëf yi nga xam ne ñoom la yàlla gërëm mooy wa amilu kon faawu nga jël sa xol def ko réservoir duyu ko essence wu ngëm wala carburant wu ngëm mu jural la énergie taqwa énergie taqwa bi jural la nag nga mën a daw ci yoonu jëf ju baax jëf yi yàlla gërëm par conséquent nga moytu jëf yi yàlla euh, sib jëf yi yàlla tere bu ko defee nag yoon wii di al amal alsalihaat dañ koy dégge ca wa amilu salihaat ja bu ca nit ka yàggee day dem ba miin fullay yàlla waaw yoon wii di al amal alsalihaat ku ca yàgg way waay faaw nga dem ba miin lay yàlla boo miinee fulay yàlla lum lay jural moo lay jural waa watawaasow bil xaq soow bil xaq mooy danga am ñàkk caaxaan gu tol ne képp koo bokkalati yoon wi doo àndak moom ci ragalante ginnaaw doo àndak moom ci neexalante waaye ci dëgg rek ba nga xam ne képp ku wàcc yoon wa wala muy def loo xam ne day yeexal yoon wa wala mu koy gàllankoor doo ko ko rusa wax waaw yow itam saa yoo naree wàcc yoon wa wala nga nara a def lu nar a gàllankoor yoon wa wala lu ko mën a gàllankoor sa du la ko wax ndax lan watawaasaw bil xaqiija waaye itam boo miinee yoonu yàlla dina la jural teey teey kon wax naa fulla ji ba noppi waaye teey gee des dina la jural teey goo xam ne danga xam ne yoonu yàlla du tooba saxal mbaama suli la doo ci dugg tay tay rek jariñu ci tay tay waaye patience lay laaj loolu muy indi watawaasow bi sobre ba tax na kon koo séqalati yoon wi rek saayu yàkkamtee ba nar a rek nga ne ko ah, muñal rek lu muy yàgg-yàgg bisa ngi ñëw boo xam ne danga jariñoo coono bi nga xam ne moom ngay jànkoonteel ci yoon wi yow itam saa yoo naree dàcc wala nga nar découragé sa morom ne la ah, de ndax lu muy yàgg-yàgg rek ku muñ muuñ boo ci nekkee too bàyyi ànd ak patience ak constance bise ngi ñëw rek tu vas récolter les fruits de tes efforts incha allah rabbi loola taxoon ma daan wax ca wax ya naan euh, li tax yoonu aljanna ak yoonu safara wuute mooy lañ daan wax naan xuffatil jannatu bil makaarih wa xuffatin naaru bis bu ma ko daan tekki tekkin woo xam ne day jege nit ñi manaan leen aljanna neex na ngan waaye neexul yoon waaw aljanna mooy dëkk boo xam ne dafa neex ngan ba noppi naqari aw yoon safara nag dafa naqari ngan ba noppi neex yoon ku teeyul nag neexit wi ci yoonu safara ak naqar wi ci yoonu aljanna mën na njariñu ëllëg mën na laa xañ njariñu ëllëg waaw waaw ku téeyut loolu la koy jural mën naa dem ba gis yoonu aljanna wa ak nam naqare mu jàpp ne du mooy yoon wi jag mu gis nag yoonu safara wa ak nam ba bànneexee ak na mu neexee ak na mu mu jàpp ne mooy yoon wi gën te su boobaa nag ku def loolu ëllëg du jariñu moo tax yoonu yàlla yombul kon ku miin yoonu yàlla rek ñaar yooyu la lay jural fulla ju mat sëkk ak ñàkk caaxaan ju mat sëkk ba ko siqalati yoon wi watawaasoo bil xaq àndub dëgg rek ngay ànd ak moom waaye doo àndeek moom mukk àndub jayante wala neexalante wala ragalante ginnaaw kon loolu mooy résultat wu ñàkk caaxaan ak fulla ji la miin yoonu yàlla di jural waaye miin yoonu yàlla dina la jural teey teey goo xam ne danga xam ne yoonu yàlla du tooba saxal mbaama suli la doo ca dugg tey rek gis résultat bi tey waaye patience la laaj ak constance mooy indi nag watawaasow bi sobri nga xam ne ko bokkal yoonu yàlla rek foo toll saa naree découragé nga di ko conseiller muñ yow itam boo naree découragé mu conseiller la muñ ne ku muñ muñ kon mu mel ne yàlla yi mu wax ci temps am na solo lool riche na lool waaw xanaa xamoo ne sax lama ma waxoon ne innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adnayaahu lil bila maanaam ku fi yàgg fekke guddi ak bëccëg léegi tey mu màgget wa man nuammirhu nu nakkisuhu fil xalq loolu yëpp temps mooy def effet moom boo fi yàggee rek ñu naan aka jongama woon ce dire que taar ba dem na aka amoon doole ce dire que doole ja dem na ay moom de làmb ju mësaan a dugg rek upp ko kon xarañ ga nga xarañoon ci bëre dem na loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk euh, ba ci wàllu géographie dañ lay jàngal ne la guddeeg bëccëg sax guddeeg bëccëg sax mouvement des astres moo koy indi waaw xam naa ca diggante wa shamsu tajri li mustaqarrin laha jur na débat yu yaato yaatoo yaatoo yaat waaye euh, bu ñu tegee fale ashams ñu ñëw ci al kawkab yi muy suñu planète bii ñu nekk muy suuf ak yëngu gi ko yàlla di yënguloo ci ñaari anam benn bi mooy li ñoo tuddee révolution révolution mooy ni muy tourner di wër jant bi moom suuf si day tourner di wër jant bi loolu la ñuy tuddee révolution wër gi muy wër jant bi at mu jot benn yoon la koy matal ci trois cent soixante cinq jours wala bu dee année bi sextile mu demee na nen waaw kon nag euh, planète de terre muy suuf si wër gi muy wër jant bi jàppal ne saa yuñ ne at jeex na baneen at di ñëw rek muy deux mille vingt et jeex na deux mille vingt deux mooy ñëw wala baneen at jeex na baneen at di ñëw loolu li muy tekk mooy suuf si kat wër gim doon wër jant bi mat na maanaam ñëw na ba agsi ca fam commencé woon wër na ko wër gu mat sëkk kooku mooy révolution waaw am lu ñuy tuddee nag rotation rotation mooy suuf si day wër jant bi en même temps muy xandalu di wër boppam suuf si day wër jant bi en même temps muy xandalu di wër boppam wër boppam googu muy wër boppam nag chaque jour maanaam bis mu nekk ci vingt quatre heures la koy matal waaw nga xam ne euh, planète de terre mi ngi ci ñaari mouvement entre rotation muy wër gi muy wër boppam di xandalu ak révolution muy wër gi muy wër jant bi at mu jot nag dana wër jant bi benn yoon wër gu mat sëkk waaye vingt quatre heures yu jot dana wër boppam wër gu mat sëkk bu ko defee nag wër jant bi mooy indi at ak moroom ja mooy indi at dem beneen at ñëwaat waaye nag wër gi muy wër boppam mooy indi guddi ak bëccëg nga xam ne kon danga ci jàngat ne àdduna kon li war rekk mooy ñaari yëngu yi muy lan luy waral texe ëllëg yowmal qiyaam ak luy waral tekki fii ci àdduna te nag lu la waay mën a wax lu la waay mën a wax tekki fii ci àdduna liggéey rek a koy maye ginnaaw dogalub yàlla loolu waaye mën a wax itam texe ci àllaaxira jaamu yàlla rek moo koy maye ànd ak yërmandeem loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg kon ñun ñun ñun nit doomu aadama ñaari taa moo ñu séq genn taa gi àllaaxira lañ koy soxla te mooy texe ganeen taa gi fii ci àdduna lañ koy soxlaa te mooy tekki ku bëgg a am taa gii ci àdduna te mooy tekki faaw nga dem liggéeyi te kuy liggéey nag ci temps ngay liggéeyee ku bëgg a am taa ci àllaaxira te mooy texe faaw nga jaamu ji yàlla te kuy jaamu ji yàlla faaw nga njëkkante ak temps kon loolu ñu gën koo xam gën a yokkaat suñuy effort gën a defaat euh, li ñuy wax auto évaluation ak introspection jéem a xool suñuy jëf ca deux mille bee passé muy deux mille vingt vingt et un lan moo ci jaar yoon ñu xool nuñ koy yokkee ci mille 2022 bi lan moo ci ay rëq-rëq lan moo ci ay faay ñu xool nuñ ko rectifier nuñ ko corriger ci mille 2022 bi tabarakallahu chaîne youtube bii di yaatal xeltuyin mi ngi leen di ndokkeel bu baax di leen wax ngeen gën a fasante kóllëre chaîne bi ah xam naa ku xamoon li ñu bëgg ci chaîne bi ak liggéey da nga xam ne du liggéeyu mbooloo chaîne bi Euh, malheureusement xamal nit ñi lu baax moo yombul waaye suñu ko xamoon dëgg-dëgg damay wax ne doy nab liggéey chaîne bi doy nab liggéey te kon day doon entreprise boo xam ne duñ ma ko bàyyee man dong waaye dinaa ko siq ak mbooloo moo xam ne àndu principe la ñuy ànde kenn ku ne nag loo am ci soutien nga indi ko moo xam matériel la wala moral la wala financier la luwaay man nga indi ndax bu ñu sañoon façon njàngale bu ne lañ ciy dugal bu ñu sañoon itam du ñu occupé wu ci lu dul fu waay jàngalee lu am njariñ rek ñu dugal ci chaîne bi mu jàll nga xam ne ku ci dugg day mel ne yaa ngi ci daara ja ya wala yaa ngi ci école ba wala yaa ngi ci université ba ba ci ñuy jàngale métier sax bu ñu amoon kuy jàngale métier euh, Euh, menuiserie wala ñu am kuy jàngale métier am couture wala yeneen ak yeneen métier yàlla xam na ne bañuñu muy def ay vidéo ñu koy dugal ci chaîne bi waaw euh, xam naa nag ci cadre joindre l'utile à l'agréable mooy waral léeg-léeg ngeen gis ñu dugg ci yu ne ndax chaîne bi yaatal la ñuy wax donc kon ci domaine yëpp la ñuy ñëw domaine yëpp léeg ñu ñëw ci actualité économique wala politique wala culturelle wala environnementale ba ci showbiz bi yooyu yépp dañ ciy dugg ndax lan dañuy bëgg kenn ku ne la ngay sentir di ko béggee boo ñëwee nga am ci dara ci chaîne bi su ko defee nag mën naa am ku doon ñëw doon xool actualité sportive wala boo xam ne culturel la wala politique wala nangam far gis fa waxtaan wu am njariñ mu déglu ko waaye li ñu gën a soxal mooy message yu am njariñ yi ah ñu ngi leen di ñaax bu baax na ngeen xam ne du liggéeyu kenn nit waaw kenn nit moom léeg-léeg nga tukki léeg-léeg nga toxu léeg-léeg nga ñàkk jot kon yal yàlla defal ñu jàmm ak xéewal ak sutura wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.